dugal nañ ci aada ba aada ji ëpp doole diine ja ba dootoo xàmme diine ci problème baa ma arrière tudd doom am na aada jigéen ju jekk solo ba rafet muuruwul yenu liir bi génn ñëw ci oustaz muxtafir mooy ilimaan ji góor ñi toog ñëw wër oustaz ay góor lañu mu génn ak liir bi rafet lool ñëw ne déej ji toog pour ñu tudd doom ji fan lañ ko teg yéen sëriñ si lay laaj bu ma kenn tontu ci seen sant yi tontu leen ma ci diini tegewul fen xaadim jëlal sa liir nga ñëw jox ustaas mu nodd ci nopp ndeyjoor liqaam ci càmmooñ tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba chariango nodd na ci ndeyjoor liqaam na ci càmmooñ tuddee nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba nañu rendi xar mi xaru tudd lu war a tollool moo xaru tabaskee yem heure bi ñuy rey tabaski ci la ñuy rey tudd melokaan wi ci tabaski mooy melokaan bi ci xarum tudd ñu rendi xar mi xaaj ndawal gi togg ci kër gi saraxe li ci des lii mooy tudd tudd laax ma ngeen di tudd laax tudd nga amatul aadi yiñ ci dugal a tax làng gi nag làng gi yebbi gi géwél yi daje sor xolle gi bàjjen foofu lañu war a gën a tiite kuñ la tuddee ti yoroo dara nga dem teggi natt boo xam ne matala ko say bokk ne nga ñaan ko xaalis ne ko dañ maa tuddee doom soxna sa am na doom damaa war a làngi da nga waroo ko wax da nga ko naan da ngeen naa war a làngi ndax yow yoroo loo làngee ñu la war a dimbale ñun kay ñooy langi mais yow langi yoo am déet c'est a le problème aada jàngoog arriéraatal demal ci takk jabar takk jabar ñaar rek la oustaz ñaar mille quatre cent laa mën a wax parce que man moom lay dund Tiwaawoon ci daara Cheikh Al Hadj Malick te moom la fi Seydil Hadj Malick bàyyi ñett ñaari téeméer ak juróom ñett fukki dërëm la daan mayee jabar man ba léegi ca laay maye yokk nañ ko sax waaye man yokku ma ca Maodo jalaayee man maa ngi ci Maodo ba léegi te du ko paase nag soo bëggoon jabar léegi ma war la ko may mille quatre cent boo ci tegee dërëm a sànni la xaalis man yokk bañ def sama yoon newu ci. maa ngi ci Malick ja rek 1400 rek ña ma maye yëpp loolu laa leen mayee ay wang-wang nag amul wang-wang ak yooyu su ma la mayee tey bu xale bi ñëwee day noyoo ma ni ko sëy amul noyoo danga koo bëgg mu ne waaw ma laaj ndaw si mu ne bëgg naa ma ni ko jour tel ñëwal ma may la ko sariya laay wax de su ñëwee ñu ne ba yu baay ma ne bokk ci tàngali xale yu jigéen bokk ci attaay xale yu góor ma ne bokku ci wàllu jàkka ma ne bokk ci jànguma bayu bàyyi téyel sa xaay jox ma 1400 nga yëkkati 1400 jox ma ma wax la xutba bi gën a yomb xutba du dara lu dul ni nga bëgg ñu yoroleele ko sa doom nga wax ko góor gi su ñëwul nga wax ko ñamu yabal waaye yow nga teewoon nag moo gën ma wax la ni ma bëgg nga yoralee ma ko sama doom mais xoolal léegi ku ñu may jaba doo dem yoo ñëwee ma ne laata indi 1400. xutba bi gën a yomb xam nga la la mu ne ah, mane ko yaay ñaan mu ne waaye jànguma arab ma ko ku araab ne la arab yi nañ mayee ci arab olof yi mayee ci olof yi njaago yi maye njaago <clears throat> mu ne ma nu ñuy def ma ne ko dama naan la may naa la sama doom jii ñu ñu ma bàyyeele ngene man nangu naa fatiha fasu na nga jox ma 1400 yi ma jox xale bi <clears throat> ma ne la may naa la xadija mii ñu ma bàyyele ngeen ne ma nangul naa la ko ñu jàng faatiha mu jeex ma wax la ni ma bul dóor bul saaga bul xas loolu la ci naqari ni ko nobee ba ñu wax ma ko ma may la ko loolu la ci naqari la waxee ma ko noonu ma réglé ko léegi bi de sariya gàtt na ñu bëri defoon nañu ay angale ngay jàng nag waaw lii rek la may naa la sama doom bu jigéen ki ko may ne d'accord naa wala nangu naa faatiha nga nga wax ko nag sa doom nuñ la koy yorale kon kay bàyyi bu ne mën ngaa maye am de lii yombul jullee néew lan la du tus jullee néew amul ñaanal néew am soo ñëwee taxaw oustaz tiim néew bi ne leen ko yorul njàpp demal jàppi defal leen sàppe yi ñaan gi nag ku man arab defal ku mënul arab waxal olof làkk boo mën waxal mooy ginnaaw bu ma sante yàlla ñaanal yonent bi yàlla na ko yàlla jéggal ti yërëm ko allahu akbar ginnaaw bu ma santee yàlla ñaanal yonent bi yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko allahu akbar ginnaaw bu ma santee yàlla ñaanal yonent bi yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko allahu akbar ginnaaw bu ma santee yàlla ñaanal yonent bi yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko allahu akbar asalaamaaleykum nañ ko suuli pare nañ suma amaatahu fa aqbarahu ñu dem yóbbu ko ci këram gu mujj dëj leen seen néew yi ñu naan dëj bi benn fan la benn fan koo dégg wax dafa nay rek luy benn fan intervention nañ ko def benn yoon ku toll ni sunu borom Iran dund juróom-ñett fukki at wala téeméeri at di jëf lu bon lu ne mu dee nga ñaan yàlla benn yoon jéggal ko yéen loolu loolu nite na man kay dañ maa war di ñaanal ñetti fan juróom-ñetti fan 40 jours bis yi ci des yëpp ñu di ma ko ñaanal ndax xamuñ lu may dajeel dañ leen seen néew yi te ngeen leen di ñaanal di leen sara xel nit kenn du ko suul fàtte ko lii mooy jullee néew gàtt na lool su la neexee nga wax ko ci arab alhamdulillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillahi allahuma igfir lahu warhamu bu dee góor bu dee jigéen nga ne allahuma igfir laha warhama mas naa dem fii ñuy jullee néew yi ci armeel yoo ma yóbbu suñu néew bu ñoo aadama jigéen la su ma nijaay yàlla na ko yàlla yërëm Ibou faatu Ndaw ak ñu bari ma jógee Tiwaawoon ñëw Ibou Fatou nelaw na fan yi ma ñëw ñuy war a jullee néew bi mu fekk fa ay néew muy góor ak jigéen ñu dajale leen waaw ma toog mu yàgg looti man mënuma taxawaay bu yàgg ma ne ko tonton lu xew ñii lu ñuy def nii yëf yàgg na di mu ne ma a ah, xam ñu xëcc kenn ci ñoom mu ñoom ma ne ko waaw sëñ bi lu xew man Tiwaawoon laa jógee te ma taxaw lu yàgg mu ne ma néew yu góor yi yu jigéen yi jaxasoo dañoo xamul nu ñu leen di jullee ma ne ko koy imaam bi mu ne ma waajee borom kaala ge ma ñëw nuyu ko ne ko papa euh, acca boog jullee goo mu ne déedéet ma ne ko acca te gannaaw néew yu bari na góor ak jigéen lañu te jot amul te boo bëggee ber ne nga jullee ko dañ fi yàgg ah boo suturaawul lu baax de ma ne ko boole leen rek. nga julli leen ngeen ni jullee góor ak jigéen dagan na alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasuli allahuma ixfir lahum warhamhum mu ne man kay dama ko bëggoon a ber rek <laughs> Sénégal yi naa fiq mii ma wax la mujj def julli néew ni mu yombee lii ma la waxal loo ci dégg aada takk jabar wax naa la ko noonu la suukaru koor mel suukaru koor du dara koor lañu yàlla sant suukar bokku ci kafe bokk ci ku lekk yaa xam ku lekkul yaa xam ñun koor rek lañ sant koor rek fukki weer ak ñaar jël leen benn ngeen bu leen li ma leen tere ngeen ba ko bu leen lekk bu leen naan bu leen see seeni jabar li ma leen tere yëpp bàyyi leen ko maa ngi dégg saa ay ustaas yu ñàkk fayda di wax naan wuy boo jogaloon sa awra teg ko ci pooju xale bu jigéen te sa awra duggul ci awraam sax sa koor yàquwul ko toll ni suñu borom sant la ak ni yàlla màggee te bu la sa sëriñ santoon doo desal dara ni mu ko bëggee nga koy defee sa ndey sa baay noonu la mel ku toll ni sunu borom bind sa ndey bind sa baay bind sa sëriñ bind la sant la nga weeru koor ñëw nga jógal sa awra teg ko ci pooju xale bu jigéen ni yàqul koor kenn gënu laa ñàkk yar kenn gënu laa ñàkk sutura kenn gënu laa riir ci àdduna dello si leen seen xel yi nag bàyyi lii yàqul koor yi yàqu ku ni yàlla da nga koy sellal wa maa ummiru illaa li yaabudu laaha muxlisiina lahu diin ku may defal te mënoo koo sellal bàyyi naa ko nga naan jógal ak tëdd sa jabar foo nañ tey jigéen yàqul koor yëfu wuyu yooyu mais ça c'est bizarre yëfu bandi la rek seytaane ngi noonu nag su ko defee sama classe nga xam ne loolu rek la ñu bëgg dama ko dañ koy dëggal wala xat àddala minkum jibilan kasiran réeral nga ñu bëri te ñoom xamuñ ne dañoo réer ndax yaa leen réeral mbiri yomb na woor leen rek la ñu wax suukaru koor bokk ca attaaya bokk ca café gi bokk ca koor rek ka ci bokk fu fu fu fu jant bi eh, fu weeri feeñe koor ga jeex na tàkk du tee ñuy continuer jaamu yàlla kon suukaru ko rafetal la man de sama daara ji kenn du fa indi tus tus ah astaghfirullah mën naa jaar feneen nag <laughs> ah, waaw ah, ñoo xam seen ah, kuy def ngir yàlla da nga koy indi ci man naa fa ne nee naa la maa yenu lépp kenn yenu maa yenu tout maay fay courant ba maay fay ndox ma maa yor douche maay def lépp maa ko gàddu te yëguma ko yëguma ko ba sëriñ Abdou nelawee ba léegi maako ko gàddu ba mu nelawagul gàdduwuma ci dara yëguma bu ma nelee yëg naa ko damay fen de bu ma naa ko damay fen sëñ Babacar moom daara ji mais yàlla ma ko yen yàlla ak sëñ Babacar yàlla lu mu barkeb sëñ kër mi nga xam ne yàllaa ko bind may ko li ma ko may lam ko may lu mu tële dara wala ne damaa ñàkk dara day fen de tous yëgu ma ne sax loolu maa ngi koy def fii laa ko teg bu ma ne nii moo defal parce que mag ñi ku leen yoral te muy dëgg ci doo ko yëg parce que la leen waroon dañ koy wa dañ koy jël jox la ko dañ koy jël jox la ko kon wareef la rek suukaru koor naa yóbbul Iran suukaru koor non non sëñ Abdou daan wax ne lu rafet la rek lu rafet la nit ki man ko am wóllëreem ne ñëw na naa ko yóbbul suukar rafet la rek fa ahsinu fa inna laa yuhibbul muhsinin rafetal leen ndax man yàlla dama bëgg koy rafetal donc loolu boo ko mënulee bu ko jéem du sunna du farata du ngënil du dara ku ko mënul ba ko waaye nag loo commencé olof xamul télé olof dañ maa may jabar am ko jiitu ci man ku ñuy wax yaa xam njaay ne ma kiñ la may nekk sëtu Maodo la weer wu dee un million tonne ceeb ma bëgg a fase ndaw si fi ma toog xanaa loolu doomu yonent bi sax jaru ko ñemewu maa tudd yàlla de yàlla ndax yàlla amul ku la ne yàlla am na doom day kàcc ku la ko wax day fen yàlla amul doom ku la ni yàlla am na doom waxoo benn dëgg yàlla bu doon am doom xanaa day ut yàlla ju jigéen def ko jabar ah waaye danañ jël ñun ñu alko ko ñii lu ñuy doyee yorul tus yàlla yàlla rek la ma tiit nag ma ni waaw ti kookoo ma ca dugaloon nag ki ma wax lii man dañ noon iraado am jabar man léegi leer sama karaw dama ko dërëjoon bàyyi ko noonu ba may jàngi du ma taluma koo peñe sax léegi laa xaw a kii nii rek tane ma di ko gunge nag muy ñibbi sama xel mi ne ci tonne million tonne million tonne million ma ne waaw lii xanaa kiñ may may du nit man loolaa billaay lo may xalaat nit la walla lu mu war a doon ah, xóorun ay nii la jigéeni aljana ti jaruñu ko ma ñëw ba ci raw du maam baaba kër si moom la ñuy romb dem këram bi ma tolloo raw du góor gi papa Abdou sàll sama xarit la nduttu la dëkk góor gi Maxtaar sàll mooy baayam ku baax papa Abdou Sall lu ne defal na ma ko te nit rek la may booleel aadama si bis bu xëyee quinze mille vingt mille chaque jour dama bul wéeru ci kenn bul topp kenn bul cogg kenn bul dunguru kenn fexeel ba sa baay buum la jéppi góorgóorlu jàng boo jàngee dana la jëriñ torop ku bari xam-xam ma romb ko mu ne mu Iran mu ne Pape dina nga def yoonam nag xam nga boroom xam-xam yooyu seen yoon fu leen neex toog mu ngi toog ci buntu këru sëñ kër gi dafa amoon soxna nag Iran na nga def ma ne ko papa maa ngi mu ne ma dégg naa may nañ la ma ne ko waaw mu ne ma wax la la ma góor gi waxoon bañ ma mayee jabar ma ne ko lu la góor gi waxoon mu ne ma daf may abdu boo fexee ba lu la waruloon war la bu la wàccee da dee ma ne kon ton wàcce na ma ak million ndax waragu ma booba laa xam ne yàllaa ko yebal ki ma wax looloo ngi taxaw yaa xam njaay mu ni ma boo fexee ba lu la waruloon war la bu la wàccee da ngaa dee ñaar xamuñu tële jigéen ak xale soo daan ñëw indi sëri ca sooy ñëw indi ko boo ko indul duñ xamuñ tële papa ana sëri ca ba la wax waaye ñetteel ko mu indi la ñetteel ab sëriñ sëriñ boo daan jox suukooru koor un million boo indee huit cent mille mu ne ah, daawoo ma jox lii de ak ñoo neex nag ñoom genre yi buur la ñu rek daawoo ma jox lii huit cent mille du xaalis doo ko jël ñu ne waa gars yi ñu daal di ree gars yi waa Serigne Moustapha na mu ne waa deux cent mille la ñu ah indi ma yeggale ko waaw mu ne waa ok c'est ça jigéen xamul ku télé xale xamul ku télé ndax defe ne ne bàyyam mën na lu ne Serigne xamul ku télé ma nekkoon nag million wàcc na ma tonu ceeb wàcc na ma ñu avancé ma ne ko nag sëñ bi yu itam séeréer wu loo nekkee mu ne ma ci nag ma ne kon lii daf maa war fu ma koy jëlee million dépense moo ree mais ceex na koor lii rek la yi nga ci dégg yépp na xaadim nit ñee ko teg seen bopp loo xas olof dan Sénégal da nga mën waa xam nga man gannaaw daan naa ko def su ma ko defal lu ñuy defee dama ko amul nangam nangam est-ce que du ma rus yii de lañ lay wax Cheikh El Hadj xam nga lu mu wax wàccati ma ne ndogal naam duma ko nangul kenn dafa ubbi bitik Tiwaawan ku ñëw rek ni bitiku Maodo la leeb rek ba bitik ba bëgg a daanu Maodo tëj bitik ba ñu ne ko si est-ce que nit ñi duñ xalaat lii ak lii mu ne hey man def mënoo tële bu leen ma fontoo jeexul waaye it jeex na